mbokk téléspectateur u Lune TV ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaaraat boobu ba léegi ñoo ngi ci liggéey bi nga xam ne moo di ziar fédération Daayira Nuuru Kéemaan bii nga xam ne sëriñ Saliou Mbacke moo koy amal ñu janook kenn ci kilifa yi di sëñ Moussa Mbacke ñu bëggoon mu indi quelque leeral ci sëñ sëñ bi ñoo ngi lay nuyu di la siyaar di la bàyyi nga nuyoog mbooloo mi. ñuy seetaan ak fi ñu mënti euh, sama bis bi nag du lenn lu mooy ziar euh, te it dafay lu am solo ci diggante taalibe ak sëriñ Sëriñ Tuubaa dafa waxoon ne fa kullu man xadama nii aw zaara fa nag ñuy wax ku dafa aw zaara képp ku ma liggéeyal wala mu siyaar si ma suñu na ko jéggal ay bàkkaaram yi ay taalibe nag yu jëfal sunub sëriñ jàppe ko mu Sëriñ Tuubaa ci ñun di ko jëfal ba tey yàlla dogal ñu di sub siyaar ci ñun ñu daje ànd ak mbokki taalibe ñëw ngir siyaar si sëriñ bi am ci yéene ndax taalibe ko sëriñam moom fu ñu rek sëriñ bi day fóot taalibe ba mu set ndax sëriñ Tuubaa dafa waxoon ne yam xoo anil xal bi rey na xatul janni suho maxwal mu xasile an saw bi najasat àndub sëriñ akub taalibe saa bu taalibe bu jege see sëriñam siyaar si ko sëriñ bi day jël xolam fóot ko ba mu set ñu fóot kat di jëlee mbalaan dugal ko cib séer wala dugal ko ba mu set noonu la sëriñ bi def ak fóot suñu xol raxas ci suñuy sikk raxas suñuy bàkkaar fàttaliwaat ñu li ñu amal macha allah kon ñoo ko déggandoo noonu kàddu yi rafet na sëñ Moussa kon ñu bàyyi la nga soññ mbooloo mi ci li nga xam ne moo di liggéey bi ñu bàyyi la nga soññaat mbooloo ci li nga xam ne moo di liggéey bi. xanaa ñu gën a góorgóorlu rek gën a takkaat sunu laxasaay bu baax a baax te farlu ci yi nga xam ne moom la ñu sëriñ bi di digal képp ko jaayanteeg moom li la sëriñ bi di mooy liggéey jaamu yàlla woy ci ndigal ak fonk say waajur liggéey jaamu yàlla woy ci ndigal ak fonk say waajur ñu ngi ci soññaan mbokki taalibe bu baax a fu ci waay mënti nekk te sax ci yi xamal la yaa ngi ci biir keppaaru sëriñ bi képp ku jaayanteeg sëriñ bi rek te nekkoo ci loolu yaa boole sa bopp ci sëriñ bi waaye sëriñ bi boole la ci boppam kon góorgóorluwaat ci liggéey kon góorgóorlu ci jaamu yàlla kon góorgóorlu ci wéy ndigal fonk suñuy waajur te sellal suñu ko defee rek am ngërëmal sëriñ Tuubaa te ngërëm loolu rek moo ñu yàlla na ko suñu borom defal barke borom Tuubaa kon ci liggéey ba léegi ñu ànd ko kenn ci kilifa yi di sëñ Issa Mbacke sëñ Issa ñu ngi lay nuyu di la siyaar di la jox nga nuyu mbooloo mi ke di nga fàttali ñu li nga xam ne moo di sababu bés bi ci liggéey bi. asalaamaaleykum mbokk taalibe yi ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax te di leen ziyaare tey amaat mbégte bu wér ci lii nga xamante ni moom la ñu maase teewe di ko def te muy liggéeyal sëñ Tuubaa kawe. boo xamante ne dara gën a koo kawe ni ko maam Cheikh Ibrahima Fall waxee woon rek loolu léegi doy na sëkk ci leeral lan mooy ziar ndax daa ànd ak Serigne Yaara Mbay ñuy dox bi ñuy dox ba yàgg mu fel ci tànkam lu mel na ab weñ ba mu ko felee daal ni ko yaaram lii lu mu ni ko li dee Fall weñ la mu ni ko lu tax mu mel nii mu ni ko ah xanaa suuf seeg ko def Fall mu ni ko weñ yàgg na lool ci suuf si te xomaagut mu ne ko fal boo ñu ci dimbalee ñu jël mu ne ko mooy raay bi mu ko riisoo gu muy riisoo ak moroomam moo tax xomaagut moo daan ne ko nag diggante taalibe kub sëriñ noonu rek la demee saa su ñuy gisee rek di taalibe bi dem di ziyaar di dem ak a ñëw di gën a yokk di gën a xam sëriñ bi pas-pasam it di gën a dëggu ba tax na bis bii moom bisu taw feex la rawatina ñu koy defal sunu kilifa di sëriñ Saalihu Mbàkke di kenn ci kër sëñ xaadim koo xamante ne kenn passé fam ak pass passam sëriñ khadim selal ko ko kep ko ko ziaré di nga am yoolu ziar te itam fajuk aajo li sëriñ bi wax ci ziar ma ne kep ko ma ziyaare sunu borom dina faj say aajo te dina la musal ci bàkkaar am nañ yaakar bu wér ci kep ko ziyaare ci sëñ saaliw ci bisub tay bi nga xam bisub ziar la di nga dajeeg ñaan gogum kon wa salamun ala man tabi'a al huda sunu xol dal sedna lol sedd na lool ci sëriñ bi jaa ngeen jëfati